damaa gis Ablaye wad mu ñew ñu ne nañu ku amul liggéey yëkëti sa loxo ñëpp yëkkati seen loxo mm-hmm. joxuñu ñun ñëpp liggéey il n'a pas réglé nos problèmes Macky Sall il a fait du góorgóorlu il n'a pas réglé nos problèmes mm-hmm. qui va régler le problème vraiment de xeyu ndaw ñi rek moom intéresse man kooku ki may wa convaincre ci xeyu ndaw ñi man kooku laa nar a voter jërëjëf Boubacar dama lay jox une réponse

loolu la ñuy woowee angle mort Sénégal dafa bari loolu c'est-à-dire que république bi ñoo xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi dëkk fi mais république du leen gis parce que ils les ont placés à l'angle mort doomu daara yi ci lañ bokk secteur informel ci la bokk jigéen ñi la bokk jeunes yi ci lañ bokk Sénégal boo xëyee dugg dakaar ak foo mënti dem ci Sénégal di nga mën a wax ne Sénégal xaw ma lan mooy défaut jeunes yi mais yaafu suñu wallahi yaafu suñu dañu amul ku leen gunge waaye nag dëgg bi mooy Que pour que le président en 2024, six mois ou un an après ma amul mais je xam nañ yoon bi parce que maa ngi lay wax sànq suñu faux départu indépendance Nous dem ndar jëm ba ku jëm yoonu emploi endroit industrie nous, nous dañuy guerre, mais chocolat tay ñun dañuy am jus de dañuy dem ay mangue ba mu ba muy ci all bi mais mënuñu ko def jus de mangue mënuñu transformer baax baax yi nga xamne mom toujours yalla jox tubaab yi créer ñu ben loi toujours dama koy wax dama koy bëgg de façon simple tubaab bi def nañ la man kat content ñëwé dima jaay do fay dara yow nga jaay ko mu ne la nak wëttéen bi des defé defee da nga may fay francs

emploi bi ñi fa nekk am ay salaire salaire yooyu moom la ñuy dugg ci magasin yi di ko jënd xaalis bi wasaaroo ci dëkk bi donc yow mi nga xam ne yaa moom richesse bi jox nga ko koo xam ne moom moomul richesse bi mais moom ci la dëkkam di noot bu paree mu jaay la ko quatre fois wala cinq fois plus cher tey kon choc Suisse yàgg naa fa dañuy wax Suisse yi ñoo am le meilleur chocolat du monde Suisse amul benn garabu cacao benn garabu cacao amul mais suisse nous jënd cacao Côte d'Ivoire def ko chocolat ñeu ko gudduna mais c'est pour ñeu ci nous ndaw yi. tay tant que créé wo industrie bobu jeunes yi nous am fu man investir na un petit ay question école xalé yi même chose la ñuy jàng problème banque finance la def wala communication. mais parce que amuñu tissu industriel bo xamné ne ci la ñuy ma jël juste un exemple mën vais ci joxe yu bari mais dama la jox textile. parce que man dama gëm dama gëm dama gëm exemple boobu Sénégal ñoo dàq sañse ci àdduna bi parce que Sénégal dañu tàmm sol sur mesure mm. alors que xamuñu ne dëkk yooyu ñuy ñee ñi am alal ñooy sol sur mesure ñi si des ñëpp dañuy dem HM wala Zara wala feneen jënd fa wékki mm. ñun dañuy sol sur mesure lool ndool ndool ndool di nga am yére yoo xam da ngay dem ci tailleur bi mu ñawal la mm. mais tissu bi ñun amu fi te pourtant Sénégal fii am nañ fi benn moment boo xam ne Sotiba lu mu bon bon tissu bi moom moo ko doon defar mais le gouvernement socialiste à l'époque ñoo dit que waa FMI ak banque mondiale tànc leen ñu ne dañuy tijji frontière bi boo tijjee frontière bi chinois ba nekk Chine defar tissu boo xam ne dina ko fayloo droit de douane fayloo ko transport mais bu ñëwee biir Sénégal de gën a yomb sa piis ci la Sotiba daanu yu mel Nous daanu ñun li ñuy proposer tey parce que textile bi c'est des milliers d'emplois ma yem ci proposition boobu tey bu ma doon gouvernement yor pouvoir nekk président de la République damay def étude de marché

loolu la ñuy wax protection des industries naissantes sa entreprise tant que mënul yegg benn niveau bi ba dem concurrence da nga koy protéger loolu boo ko defoon tey Sénégal dina def piisam Sénégalais yëpp di sol yëre bu baax xaalis bi milliards yooyu ñuy investir ci importation parce que importation bul fàtte ne saa yoo ko defee rek yaa ngi enrichir keneen ki Getzner bi ngay jëndee ji Suisse wala Autriche yaa ngi enrichir autrichien ou wala suisse tomate bi ngay jënd enrichir l'objectif c'est que le gouvernement bi le privé national pour ñu defe ko fii ba frontières donc loolu boo ko un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans ndaw yi dootoo ci gis kuy jooy liggéey parce que dañuy am liggéey beneen mesure bi tey jeunes yi wax la fu suñu ci entreprise moi j'en reçois beaucoup mais le gouvernement du Sénégal boo tegee su petite et moyenne entreprise balaa ngay def un an pour deful ndànk di nga fayit parce que taxi, taxis, ñooy ñëw wër la amagoo sax loo fayee loyer mais ñi nga xool ñoom li nga jox dans un pays boo xam ne 17 millions d'habitants, 10 millions d'adultes, adultes xam nga Boubacar ñaata sénégalais ñooy jot salaire par mois 450 mm-hmm. 000 il y a 300 000 dans le privé Combien immédiatement. y immédiat mhm. il y a 300 000 sénégalais qui ont fait bu weer deewee ñu publiques loxo ñu fay salaire. fonction publique ak de l'État ils sont 140 000 ça fait 440 000 Ils ont chaque mois dinañ jot salaire sur 10 millions de sénégalais actifs Ils ñi ci des salaires lañ nekk. lu ñuy dépenses. pourtant ñu ngi joxe dépenses. angle mort c'est l'État la état di encadré lépp loo xam ne dañ koy jéggaani nga fexe ñu def ko fii nga wàññil leen taxi état du Sénégal fi mu toll nii tey dafay préférer fekk benn jeune bu investir am chiffre d'affaires 10 millions mu jël ci 3 millions kii na nga xam ne nag ay milliards ay milliards lay def. ñëw dugg mu baal ko 20 milliards. te 20 milliards yooyu bu koy jël fàtte na ne moom mu ngi jël 10 millions ci koo xam ne bu ko jëlee ci moom mu mu daanu man maa ngi suivre trajectoire immédiat maa ngi koy suivre bu baax gis nga livre bi def journalistes ci journalistes ñu débat suivre contentieux bëggoon ci sax dugg moment. Hmm. débat bu mel warul am Sénégal yow boo jaaree fi nga jaar ba immédiat du état état enrichir dans le livre dama RTS yow bi nga juddoo ba mas nga dégg ne weer dee na RTS kenn fayu leen RTS hmm. muy taw ñu ngi leen di fay hmm. muy neige ñu ngi leen di fay programme yi neex ñu ngi leen di fay noir blanc ñu ngi leen di fay couleur ñu ngi leen di fay parce que état moo leen di fay service public la wutuñu bénéfice waa mais ngir yàlla boo nekkee ci situation bu mel noonu doo jël publicité bi nga jox ko secteur privé man bu ma nekkoon président tey l'une de mes premières lois mooy lépp loo xam ne média public la mooy APS mooy RTS

RTS ak tous les médias publics dootuñu laal publicité. Hmm. publicité boobu da nga koy jël nga jox ko secteur privé. surtout que ñoom ñooy laal redevance au Sénélec exactement <laughs> donc pour man loolu. loolu soxlawul nek am doctorat mais da ngay xam nag économie ni muy doxé pour nga xam ko mais ñom lan mo laax lutax ñu bëgg jël milliards yoyu continuer diko jox RTS. alors que les médias là dañ leen wara privé sujet bo xamné je sais pas dina d'accord ak Boubacar wala déet waxna ko fi daaw. Mm-hmm. mais Sénégal tay, man dama am fierté ñun ñu commencé am Jollof Wood ñun ñu commencé am Senewood bo waxé Hollywood wax bu Nigérian yi Nollywood mm-hmm. mais Sénégal légui, c'est les jeunes sont pétris de talent pétris de talent mais man gisaguma djégo bu ci gouvernement def mm-hmm. pour jappalé leen mm-hmm. est-ce que c'est normal man de pour moi, c'est pas normal que la seule chaîne sénégalaise bo xamni exclusivement cinéma sénégalais lay def sénégalais moomuñu ko canal moo ko ah, canal ko le canal B, man nag saa mo ma bon dina am ay quelques électeurs peut-être mais dina ñak ay soutien financier le hmm. soutien financier ça ne m'intéresse pas li ba xalat lay wax hmm. mais canal nek na fi ak Excaf canal licence am jeex renouvelé wuñu donc ñu exercer presque illégalement am contentieux ak Excaf nee nañ yow dañoo daan Excaf ba gouvernement du Sénégal di jàppale canal contre Excaf loolu da nga xalat ne mën na am France yow tu penses que France mën nga fa am fréquence yow Boubacar Diallo avec sa talent avec sa expérience espèce c'est un portefeuille licence internet sax France parce que protègent le secteur privé national Sénégal nag da ngay les bijoux de famille mais moom ngay jël nga jox les étrangers Ils contre les étrangers. mais sur les 5-6 dernières années tout le monde parle que du cinéma sénégalais Si vous YouTube des fois nga films, film yi bay commentaires africains yi sax au ci sénégalais une fierté mais qu'est-ce que le gouvernement fait man bu ma man président mais vais injecter des milliards dans ce secteur protéger le secteur privé mais xale yi formation YouTube. Ce n'est pas des formations de licence de master de 3 ans 4 ans 5 ans dans les métiers de l'audiovisuel 6 mois 8 mois 1 an nga paré, mais xale yi ñëw liggéey ci hmm. nga changer l'image non seulement tu crées une économie jeunes yi liggéey ci mais que règle le problème de l'image africain l'un des meilleurs films man bu ma cinéma Moi Wakanda parce que pour la première fois on fait voir à nos enfants que l'Afrique, mën le leadership au niveau mondial américain noonu ont commencé Les ñu loo xam ne li ngay gis ci film yi ñoom ay Conan le barbare ak yooyu xaw ma mm. ak yeneen ak mais boo ne États-Unis doo ko gis dans nga États-Unis dañ la jaay image ils ont fait croire au monde qu'ils sont les meilleurs il y a des africains qui xam ne Dakar rek la ñuy rêver parce que ils nañ leen Dakar à travers notre cinéma Légui nan ngay amé ay bijoux yu mel non mel ni intéressé donc affaire bi gis nga pour peu que nga bëgg sa réew mhm. dafa bari ay niche yo xamné man nga ko fa jëlé. je termine mhm. man par exemple gouvernement ministère de la jeunesse au ministère de la femme parce que ministère de la jeunesse et ministère de la femme moy da nga parqué jigen y baye len ci folklore ban problème le ministère de la jeunesse réglé ban problème le ministère de la femme réglé mais administration bo fi dem agriculture dafa am ay femmes mm. dafa am ay jeunes numérique dafa am ay femmes dafa am ay jeunes télé dafa am ay femmes dafa am ay jeunes da ngay fexé def politique bo xamné dans tous les domaines de la vie économique et sociale les bi da accompagnés. koy accompagner je termine en disant que le Sénégal, c'est n'est pas un problème de Ligue Ndaoui. Parce que Ndaoui, tu as 20 ans à mon 25 ans à mon 35 ans à mon 40 ans à mon Ligue. Donc, tu as pourtant à mon Donc, Sénégal, problème Ligue, il y a un problème Ligue Ndaoui de façon spécifique. Merci beaucoup, Babar. en fait, euh, euh, du coup, il y a des docteurs. Il y a des gens qui ont dit que c'est un problème ndax ndaw ñu bari ñu ngay wéy di jàng ba léegi te jamono ju ñu waroon a liggéey ñu ngay wéy di continuer di jàng mu mel ni éducation bi tamit yaakaar naa war nañ koo xool mu dëppook li nga xam ne mooy réalité wu Sénégal euh, euh, yaa ngi koy jund nag li nga xamante ni bi moom la ñuy wax